jërëjëf jërë ngeen jëf dama am message bu am solo pour waa département Mbacké dama bëgg nga déglu ma baax a baax a baax a baax fii ñu taxaw di wax nii vingt ci kanam histoire dina ko bind da a dugg ci histoire Sénégal te yëgoo leen ko yéen waa département Mbacké da ngeen dugg ci histoire Sénégal te yëgoo leen ko laaj leen ma nan ngeen duggee ci histoire leen ma ci histoire gor gu ñuy wax président Ousmane Sonko bi mu yëkkatee projet yéen yéen a ci joxe seen bakkan pour projet bi taxaw. ñaari doomi département Mbacké ñoo dem kaso ngir projet bii. ñaata doomi département Mbacké ñoo ñoo dugg kaso ngir projet bi kon tàccu leen seen bopp département Mbacké ban leader politique moo man lii depuis 1960 boulevard Ndoyeen bii ñu taxaw benn leader politique ñi mu fay def meeting dégg naa kii tasu suba ku ñem na nga def kon yéen waa Mbacké mars au sikki sàkk na di ngeen fal président Bassirou Diomaye Diatta premier tour premier tour premier tour premier tour mu des nag mu des nag suba suba waxkat yi waxkat yi waxkat yi ak dëmm yi dinañ takkat rajo yi waxkat yi ak dëmm yi dinañ takkat rajo yi xam nga lan mooy nekk seen argument xam nga lan mooy nekk seen argument mooy président Bassirou Diomaye Faye du murit est-ce que yéen ñi taxaw fii gëm ngeen sëñ Touba man Cheikh Thioro laa tudd sant Mbacke ànd ak président Bassirou Diomaye Faye Serigne Assane ba sëriñ Serigne Fall la ànd ak président Bassirou Diomaye Faye kon yéen ñi taxaw fii yëpp kan moo leen gën a gëm Serigne Touba kon ñun ay murit lañ ba pare bokk Pastef ñun ay murit lañ bokk Pastef kon président Bassirou Diomaye Faye bi muy ñëw Mbacké yéeneen numéro un mooy siyaare la xalif général de murit moo tax mu woo ma téléphone ne ma lijjanti ma bu ma ñëwee ma siyaare ji far yàlla dogal Cheikh Mouhamadoul Mountakha fatu moo tax dem fa kon waxkat yi bu subaa boole ni bind boole leen ci loolu yéen waa Mbacké est-ce que pare ngeen pour pare président mu des nag na jiñ leen xamee woon démb ak barki démb mooy suuru bati ku nar a foqal suñuy résultat nañ ko jaay suñu bakkan Ba sàcc la ku ànd ak moom sàcc la Amadou Ba sàcc la ku ànd ak moom sàcc la boo leen bëggee changement far moo faw fan leen borom la koy sat yi président Bassirou Diomaye Faye di taxaw ne liggéeyee naa quinze ans et pour le domaine musuma sàcc dërëm bi moomul président Ousmane Sonko président Ousmane Sonko li muy baax baax baax tànn ku baax la gën a man président li muy baax baax tànn ku baax la gën a man moo tax mu tànnal ñu borom loxo yu set yii góor yu baax yéen ànd ak moom kon yéen waa Mbàkke bu leen des ginnaaw ci projet bii képp ku ci man sa morom di ko raw ba faw kon yéen waa Mbàkke raw ngeen ba faw di rendre hommage jàmbaar yi nga xamante ni ñoo ànd ak ñun depuis campagne bi démarré ba léegi ndax seize communes yi nekk ci département Mbacké coalition Diomaye wër nañ ko ci huit jours huit kon fii ku taxaw ne coalition Diomaye dina fi tëkkoo kenn waxul dëgg fii bu ñu amul deux cent mille voix échec nañ bu ñu amul deux cent mille voix fii ci Mbacké échec nañ parce que pare ngeen pour jox président premier tour. Vive le premier tour.